jërë ngeen jëf l'observateur xëy na ngeen bu takki jaajëm ak xar nga fuufam dugg ci lambu ji di léewtoo ak roi des arènes ba woon mu di Yaxya Jóob Yékini gannaaw ab diir bu mu toog amatuk tàkkusaan gonek baasul ga war a dellusiwaat ci lambu ji ak dellusim la l'observateur xëy di jàngat maanaam Yékini ndaanaan lu ñu galfan yéenekaay mu di Balla Gaye 2 Yaxya Jóob Yékini du benn gaañu-gaañu rek la doon sooxaale am na ñaari gaañu-gaañu yoo xam ne da ko doon sooxaale ba sub combat ba li mu doon wax moom Yaxya Jóob Yékini Yékini ne gëmul ne làmb daan ak daanu ñoo ànd journal bi nañu léegi na gëm na ne làmb daan ak daanu ñoo ànd waaye li mu jàpp ci boppam moo di képp kuy taxaw ci làmb ji moom yax Yaxya Jóob ni moo la mën ak dellu si waatam l'observateur nañu ñu ko wër xamal nañu leen ne caaxaanewu ko benn yoon lu mu daan def benn def na ko ñaar moo ko entraîneur am Dikati Diop ñoo ngi ciy liggéey bu baax a baax ndax xam nañu xel ne combat la ngi bu ñu doon séentu te mujj tam mu di combat Ama Baldé ak Papa Sow sunu làmb xëy di ci waxtaan ak le Puma de Fass mu di Papa Sow mu ne leen am na ci lu ko lool ndax jàpp ne combat la boo xam ne mënoon naa suwee lambu ci te moom Papa Sow dafa war a daje ak Ama Baldé ngir yamale ko tegaat ko palaasam combat Ama Baldé ak Gris Bordeaux Papa Sow ne waa sunu lambu lii fekk maa ngi écurie Fass Gris Bordeaux du mës a bëre ak Ama Baldé écurie Fass ak i jafe-jafeem Papa Sow ne ci yéenekaay bi mbindeef mënu koo régler ñu bàyyi Papa Sow te seeti meneen Sow mu di Alioune Sow l'article bi nañu diggam ak waa Parti démocratique Sénégal naruta neex ne waa PDS nee nañu bëgguñu mu wuutu Ousmane Ngom ci Assemblée nationale ndax Alioune Sow bokkatul ci ñoom Alioune Sow nañu loolee wax ju ko ñu koy xupp ak di ko tëkk dañu ko umpale moom pare na ngir dem takki ndombal tànkali Ousmane Ngom tekki teg ci assemblée nationale te gars parti démocratique Sénégal yi ko bëgg mbii fa foore nañu xam ne du leen ko yombalal dana ci xeex ak ñoom Sud Quotidien nañu Aliou Sow fasuta yéene yombalal waa PDS li ñu bëgg dañu koy menacé te du leen ko may maître Abdoulaye Babou nañu ci journal bi waa PDS ak li ñu wax ñoo nekkul ci yoon Ndiogou Sarr dib docteur a Alioune Sow dëkk na Parti démocratique Sénégal ndax dégg nañu ko démb ci rajo Futur Média moom Alioune Sow muy wax ne dana dem assemblée nationale ngir ñu installé ko Alioune nañu waa Parti démocratique Sénégal nañu noppalu ndax moom du kuy toog ne yàcc na yasar di seetaan ñu koy sànk xamante nañoo gars yàgg nañoo defante fu nekk ñoo ngi fay jaar waaye mënuñoo fexe ba am ndam ci sama kaw kon du tey jii la koy am ku amul réew mi quotidien wuti ko ku ko am ubbi ko wala kimil de mandat le bi xëyee nañu ne ginnaaw Aïda Mbodj am na ñeneen ñu ñu tekki seen ndombal tànk ndax ndomba dafa bari woon ci seen tànk bokk na ci Alioune Dembourou Sow ca conseil départemental bu Ranérou député maire Yatou Sow vice conseil départemental bu Podor député maire Daouda Dia ca conseil départemental bu Kanel Ibrahima Baba Sall ca Bakel Inthiou Boiro ca Médina Yoro Foulah ak Mamadou Cissé ca Kédougou direct info nañu ndax li ñu tàmbali danañ ca dem ba jeex tekki ndomba ya journal beeg li muy ragal moo di gaa ñi def ko départu gaynde arrivé golo juróom-ñaari téeméeri junniy doomi aadama ci Sénégal amuñu identité wal fajri moo xëy xibaar bi tegal ñu ci ne état bu Sénégal bi leen waroon a wutal ay identité moo leen ko xañ ndax nangoo nañu ci xibaar yu ko ci leeral askan mu di Omar li tax mënatuñoo jox askan wi ay identité moo di dañoo amee bor bu toll ci ñeenti milliards porte parole bu MFDC xëy na sàllaat ñu ko ci laasinekaay mu di Abdou Elinkine Diatta ma fay xëy di leeral ne amul benn xaalis buy bàyyee ci kilifa kilifay Gambie du dugg ci fipp MFDC yi ku leen ko tuumaal tooñ nga leen Elinkine Diatta ne Casamance daa xiif te kenn taxul mu xiif ku dul président moom laa ciy tuumal yeneen i tuuma yu mu yëkkati teg ko ci ndoddal état bu Sénégal moom Abdou Elinkine Diatta moo di li mu ne nguurug Sénégal dafa am ay rébelli boppam yoo xam ne moo leen yore gàddul leen seen lépp bépp woy politique bu cosaano ca Casamance Abdou Elinkine Diatta ne ñu ci laa Sénégal la la da nga koo wàcc maanaam dañoo i moom la ñu bett mu bëggoon a violer kenn ku jigéen ku jigéen kookee sax l'observateur nee na ñu dafa tollub diggante maanaam dafa ëmb jëkkër ji bi mu bettee paa bi ci néeg bi dóoru ko saagawu ko ni mu ko def moo di nangu ay yéreem futti ko ba mu ne dung génne ko ne ko demal ñibbi